nihma Cheikh Fallou Cheikh Fallou laay. kasu rajabin akramani. yow yow nag li ma la ci digal mooy danga ma daa bind bataaxal li ma li ma nee na maa bëgg a liggéeyal. nga dama ko wax salaamu aleykum mbokki bés bu mag ba di journée sociale Cheikh Mouhamad Fadal Mbacke te nag waa daayira yu soppey Serigne Fallou Mbacke amal ko si njiitalu soxna Ndeye Fata Mbacke ñoo leen di yëgal le 6 mars 2021 yemook nag samedi ca Ndindi kër Serigne Fallou tur bi naka la ak euh, sant bi Papa Mbaye euh, fi nga dëkk Ndindi ah, Ndindi Serigne Fallou taalibe jëf am solo ji taalu taalu bépp sëriñ Jili sëñ Galas Mbacke moom sëriñ Jili Mbacke moom sëriñ Fallou. jëf di sant sëriñ Fallou bu baax a baax a baax a baax a baax a baax di ñaanal Cheikh Abo Mbacke Fallilou mu yàgg fi te wér. noo ngi doolee ñaanal Cheikh Abdou Fatah Mbacke Fallilou yàlla na fi yàgg te wér ndax nun jàmbatuñu dara nu dara defuñu dara noo ngi sant sëñ Fallou bu baax a baax a baax di doolee ñaan ñaanal Cheikh Abdou Fatah Mbacke Fallilou mu yàgg fi sunu kanam jëfi soxna Ndeye Mbacke ji naka nga ko jàngatee. sant bu baax di ko ñaanal rek fan wu gudd gu ànd ko wér ndax sunu xol sedd na guy ndax teraanga ji rëy na baax na mate na ko waaw. yàgg nga ñëw. man yàgg naa man fi am naa fi 74 laa fi ñibbi si woon waaw. ñi nga xam xanaa di xanaa di dimbali néew doole yi rek waaw di dimbali neex ndax sëñ Fallou Mbacke nee na jaamu yàlla ci jaami yàlla yi waaw kon nag euh, ku kii woo man man daal koo mën a dimbali nga dimbali ko te yàlla tax. jamono ji tombé. Ah, jamono ji moom xam naa doy waar waaye nag noo ngi sant bu baax a baax a baax ndax sëñ Fall nee na àdduna nettali rek moo moo moo ci mujj kon nag boo xëyee rek jëlee nettali rek teg ci sa kanam kon nag yal na yàlla ak sëriñ lu Mbàkke defal nettali bu rafet. si ñu ngi lay ziar tur bi naka la. Jama Gueye. fi nga dëkk euh, Touba Ndindi. Touba Ndindi waaw. jëf ju am solo ji soxna Ndeye Mbacke def tey naka nga ko jàngate ak loo di sant yàlla rek di sant Ndeye Mbacke di sant Serigne Fallou borom dindi ndax lépp luñ fi am rek sëñ Fallou lañ ciy jiital sant nañ ko gërëm nañ ko te ñi ko fi indi nii itam sant nañ leen gërëm nañ leen ndax mënoon nañ ko fee ñàkkaa indi te yenee ñu ko moo tax mu indil ñu ko kon nag ñoom ñoom ñu ngi leen di sant di leen gërëm di sant sëñ Abdou Fatah. mel jamono ji toll na foo xam ne nii ñi nga xam ne nii ay borom barke lan jot na sëkk nag ñu roy ci jëf ji mën a dimbali ñi nga xam ne nii seen loxo jotul seen dëgg gannaaw. ndax fu ne nii daanaka jamono ji fu mu ne nii toll na foo xam ne ah ñu bëree fu mu ne nii jotuñ seen seen loxo jotu seen ginnaaw kon nag képp koo xam ne ni yaa ngi taxaw bëgg leen a jàppale dañ lay sant di la gërëm waaw di leen ñaanal fan wu gudd ak wér yaram rek ngeen yàgg ko fee indi yàgg ñu fee fekk ci barke Serigne Fallou mi ñu yaakaar. ñu ngi lay nuyu di la ziar tur bi naka la. Serigne Fallou Sarr. Serigne Fallou Sarr fi nga dëkk ci Ndindi. maa dëkk Ndindi Aréna bi. Eh, yaa ngi ñëwoon nag ci ay jëf ju am solo. soxna Ndeye Mbacke mu ngi ko doon amal tey mel na ni am nga ci jëf ji naka nga ko gisee loo ci mën a wax. ah, ah non sant bu baax ah, sant nañ sant daal baax laal ah, ah jëf daal li ci moom maanaam na am nañ ci sant daal sant nañ ci am nañ ci am di tànga la daal tànga te am nañ ci li ci daal mooy moom daal tàng baax la ci door ñëw wala yàgg nga cee ñëw. yàgg nga fi ñëw ñëw parce ñi tey daañu ñëw fi sax am na xam ni sama sama wóor leen àdduna ba xam na ak ñooñu yàgg naa fi ñu laal parce que daañu sama doomu sama doomu njaay la moom laa am naa ci mbégte mag daal. mel ni itam toll nañ foo xam ne nii jamono ji mën ne ay jafe am na fi kon jombul ne jëf yi ñëwee ne jamono ji nga xam ne ci leen ci ngeen ko gën a soxla. waaw jafe jafe na trop lii moom lii moom am na ci ñun bu ko defal baax rek daaw a sant bu baax te lii am nañ ci mbégte mag sax lan ngay ñaax euh, ñeneen ñi nga xam ne mën nañ ne ay borom doole lan war mën nañ dara euh, ngir euh, ñu roy ci jëf ju am solo ji. waaw ni ma leen wax laa nan xool ñi def yu baax jéem a roy ci baax ñi ñuy def parce que am ñi xam ne ñu xaw a doole te te soxla nañ daal nañ jéem a xool daal yu baax ñi xam ne am na doole ñu def lu baax ñoom nañ xool foofu jëm tam li ma def lu baax waaw. نهما شيخ فالو شيخ فالو لاي كسر رجب li ma la bés bu mag ba di journée sociale Cheikh Mouhamad Fadal Mbacke te nag waa daayira yu soppey Serigne Fallou Mbacke amal ko si njiitalu soxna Ndeye Fata Mbacke ñoo leen di yëgal le 6 mars 2021 yemook nag samedi ca Ndindi kër Serigne Fallou